ngi ci jàmm. sant ah, mbokki fan. maa ngi dëkk euh, Mauritanie laa jógee nekk laa nekk. Mauritanie nga jógee. moo war a teewaay bi tey. Ah, waaw Ngor Almadi. Ah, tey naka nga gisee appel Seydina Limamou bi. waaw walaay la Azim kontaan rek. walaay kontaan nañu xel xel daal neex na. yàlla yàlla def jàmm si réew mi. ñu fi ñaan si réew mi yàlla na ko yàlla nangu. yàlla def jàmm si réew mi taw feex parce que ñun si jàmm rek ñu xaj en Afrique y a beaucoup de ni yaa ngi fay dégg histoire yu bëri mais tel n'est pas le jàmm yi ñëpp ñu jàppale ñu si ñu jàmm boobu delluwaat si réew mi ndax ne réew mi réew bi jàmm la ku fi bëgg a jàmm ñu ko fi am ku bëgg leneen loo xam ne jàmm na ne la wóor na ni yaa ngi indi sa bopp problème ndaxte dëkk bi dëkk jàmm la tawfeex lépp jàmm daal bu sedd daal guy ñuy ñaan si réew mi si bésu Baay Laay bi yal na yàlla defal si bésu Baay Laay bi. Euh, ñu gis ne xeex yi bari na jeunes yi génn bari na waaye yéen en tant que ay ndaw Seydina Limamou mu xeex lu bari bari kenn du leen ci dégg ana ban jàngal la Seydina Limamou mu jàngale yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw yi ndaw yi ndaw réew mi ba jëng yëngu-yëngu amee kenn du leen ci dégg. xam nga boo gisee kilifa diine yi nekk Sénégal yëpp que ça soit mu nekk Mouride mu te boo leen gisee jàmm ñuy woote jàmm ñuy woote kon ñun aussi bu ñëwee en tant que comme étant des talibé kon dañu war topp seen chemin bañ a topp lépp loo xamante ne violence la loo xam di indi coow parce que ñoom fu ñu nekk nekk ñu ba jóge fi coow ma soog a dégg si réew mi donc bu ñu demee aussi ñu war sàmm loolu gérer ko ba yàlla def jàmm loolu daal mu ñuy woote si réew yi daal si réew mi. jeunes yi génn di xeex ak di manifester si digg réew mi xojante oto gi ak taal moto yi ak sànnante ay lacrymogène ak sunu policier réew mi est jar na ko daal moment bi ñu toll nii. non loolu moom jaru ko wax dëgg fi yàlla ki boo amee lu la métti pour man comme état un intellectuel amul benn voie bi ñu mën jaar ba mën a problème parce que boo gisee problème bu amee kenn warul jox rek di xeex wala di xuloo on doit faire de telle sorte toog ñu waxtaan. parce que fépp foo déggee guerre am na fa histoire am na fa lan lan la ñuy mujjee toog waxtaan kon pourquoi ñun pas ñun Sénégal benn bopp la kenn warul xel ñaar fu mu nekk policier beeg gendarme beeg militaire bi ñëpp ñoo boo ko ndey ñoo boo ko bàyyi mais bu dara amee xiiroo ak ñaar yooyu matu ko si ñu war toog ñu waxtaan di trouver une solution parce que boo si la mais quant à ñëw di xeex ak di sànni ay yow. ay sàngante ay policiers yi ak yi andi ay yooyu yëpp ay xeetu violence la te yàlla bëggul violence xam nga jàmm ñu wootee ñëpp ñëw fekk ñu si jàmm xam nga pour jàmm si lépp xaj parce que boo gisee Sénégal dëkk yëpp ñeme Sénégal c'est le seul pays en Afrique boo fa demee da ngay gis nationalité yëpp amul benn nationalité booy wut si àdduna doog fekk Sénégal dama la ko waral mais jàmm gisoo temps yi bu gars yi wootee investisseurs yi jógee en Europe Asie partout pour ñëw pour investir si réew yi ndax lan tey du ñu xam ne dëkk bi di ko jàmmale boo fi investir naataange day am si dëkk bi mais bu histoire amee xeex mais kon du am volonté gars yi ñëw si dëkk bi di fi di fi investir xaalis ak ñëpp bu ñuy daw te loolu baaxul si économie dëkk bi dëkk daal jàmm rek rawatina Sénégal dëkk boo xamante ne ay mag yu baax ñu fi nekkoon bëgg lu baax. ndaw yi aussi bu ñu joge malgré dëkk bi métti na taux de chômage bari na trop mais wa tawakkal ala llahi wa kafa billahi wakila ñu dooloo yàlla am nga su defee yàlla dañu fekk si mais violence bu ko indee moom ah yàlla yàlla dañuy mere parce que yàlla bëggul violence yàlla bëggul violence kenn bëggul violence te yàlla rëbb na ko yee fitna kon yan ñu yàlla defal jàmm daal delloo suñu xel yi euh, neer yi température yi si tàng na mer nañu mais nañ delloo xel bi fas yàlla parce que boo xoolee Sénégal seen pays laay que ça soit musulman chrétien ñëpp ñoo bokk ndey ak baay donc am na lu bari loo xam ne xaju fi quoi euh, des élections bi élections yi nga xamante ne dàq ko ba yeneen jamono ah bon élections yi nag bon euh, d'une part bon xam nga ñun ñoo doon oh, ba saa ñu élection yi dañ koy rapporté ba ba ba le 25 peut-être que le de la république son excellence monsieur Macky Sall peut-être que am na lu tax mu rapporter élection yi yooyu aussi duñ koy yooyu loolu aussi peut-être que ni ñu koy nangul. loolu est-ce que nekkul ba euh, loo xamante ni bii nii xaw na bouleversé ndax bañ juddoo ba léegi mu mel ñu ngi doog gis lu mel nii. waaw xam nga bon dëkk bu nekk ak ni muy doxee peut-être moom lu mu def li nii am na ay réalité tax. ñu teg ko parce que boo gisee temps yi assemblée nationale coow la judd na fa mbiru Karim Wade am na histoire yu bari yoo xamante ne man yaakaar naa ni yooyu yëpp moo gàllankoor ñu ñu repousser élection yaakaar naa ni carrément bu fekkoon jàmm rek mooy am son excellence du du du du du reporter yi si coobareem wala si lu ko neex bu ko defee rek am na lu ko waral kon ñu déglu ko rek. comme que moom tàggoo na ci neen day dem. Mhm. ah ñu déglu ko rek. xam nga mu nekk euh, en fait en comment dirais en décembre ba mu nekk vingt cinq lépp mhm. luy xew moom yàlla def na ba pare kuy gagné yàlla def na ko kuy nekk njiitu yàlla def na ba pare. kon dalal xel rek bañ fitna gi xam nga bañ yee ay ak fitna parce que duñ ci jàmm ñu xaj. léegi ñun def lu jàmm rek ñu ngi sonal suñu bopp parce que ñun xajul si jàmm Sénégal xamul fitna jàmm rek ñu xam kon yal na ko yàlla defal amiin yaa rabbi jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëf taw merci mbaa yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant ah, foo jógee ba ñëw si appel bi yow ñu ngi jógee Guédiawaye Cité Gadaye ah Cité Gadaye ah, bokk si ban daayira daayira Seydina Mandione daayira Seydina Mandione Saybur Kira picc mi waaw waaw lay jaajëfal ba dal kontaan ne euh, ban euh, yëg-yëg nga am tey fii ci biir jàmmalaay contentement xol ñu tegee suñu tànk biir jàmmalaay rek suñu xol lay sedd waaw tax ñoo xam la ñu yor moo waa mën nga ñoo wax tuuti ci loo xamal si euh, jëmb ji nga xam ne tey moo waral bis bi tey mooy borom woote bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ak xamal nañu suñu diine xamal nañu kii baan <laughs> nañ ko dagg xamal na la lan xamal nañu suñu diine daal waaw kontaan daal en tout cas ak del euh, euh, yow en tant que jeune euh, ñu gis réew mi ak ni muy doxee fan yi jeunes yi ëpp ci ñi nga xam ñoom ñooy génn si terrain bi di manifester ak di def loo xamante ne bii nii ah, naka su dul noonu la ah, ban message nga mën a lancer en tant que jeune. waaw ah, di lancer rek ñu ànd ak dal ak tey daal lépp lu ñuy dem nañ si ànd ak suñu daal ak sago waaw. Euh, ban jàngan nga am tey ba nga déggee ñu ne élection itam reporté nañ ko ba moo bi nga xamante ne bii ni méngoowal ak moment bi nga xam ne moom lañ ko jàppoon. Ah, ko teg si règlement rek loolu laa mun may wax waaw. ça va bien. yaa si jàmm. yaa ngi sant yàlla. ah fan nga jógee ba ñëw si appel. géejawaay géejawaay nga jógee. waaw ah, lan moo waral teewaay bi tey. gëm Seydina Limaamu te ko rek. si ñoom tax bu moo ñu indi fii ñoo bu pour dëggal si ko rek te xam ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo wax yaa maa sala insi wal jinni nii rasulullah ilayhi kon ku ku jar a gëm la ni li mu woote bu nekk woon dëgg ba tey xam ne yàlla def na def na si moom dara yàgg na ba mu wootee ba léegi yàgg na bu nekk woon dëgg ba léegi xam nga ne yàlla moom du gis du du seetaan ku koy ku koy waxal loo xam ne moom dafa ko kon dëggal li muy wax dëgg en tant que Layène ñu ñu woote tey 144e appel mu nekk tey loo xamante ne du ay caaxaan téeméeri at yoo xamante ne teg na ay at yu bari bari bari bari bari ba sànq bu woote ko tey euh, tey euh, ban euh, ban ban ban ngëm-ngëm wala ban njëg nga am tey jii si bisub tey jàmmalaay bii nii. waaw nee naa ñëw sant yàlla te xam ni moom mu ñu tànnal Seydina Limaamu Laay séddee ñu ko loolu lu rëy la si ñu laayee ñu war a sant yàlla gën koo santaan julli Seydina Limaam sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la kontaan jërëjëf. tey teewaay bi fii si appel bi. waaw maam li maamu laay rek di ko si. di ñëw di barkeelu tey siyaar tey ñaan yàlla yàlla nangu lu suñu barke. tax kii demee ñuy jël si yëpp yàlla na nekk yiw ak xéewal ak jàmm te yàlla nañ ko teewee ndëgën di déwén. te ñu rafetlu teewee nag mbooleem julliti yàlla loolu da leen fi andi. bi nga xamante ne bii teewee nga ko tey ah, ku si mel ni Mamadou Lamine tey di jël ay kàddu. xanaa bëgg ci moom rek laay maxtaar bëgg ci moom man taal ba seex laa waaye man fépp laa yemal aw ma murit aw ma laayin aw ma xaadi ñëpp laa yem ndax lépp ci yàlla la jëm xam ne lépp ci yàlla la jëm amul lu ñuy xaajale ak lu ñuy wëlbati ñun ñëpp yàlla am tax a jóg ak yonent bi te moo tax maam Limaamu Laay jóg moo tax Alaaji Maalik jóg moo tax Sëñ Njaasaan Ñaseen fépp moo leen tax a jóg ñun ñëpp benn yoon la la amul fu ñuy jàdd ak fu ñuy dëngal kon nag ñu nekk benn tey ñaanalante kenn ku ne la nga yéene sa njaboot yéene ko sa njabootu morom kenn ku ne la nga yéene réew mi nga dëkk yéene ko réew meneen ndaxte loo yéene rek ci yow lay jëmaat loo yéene yéenee tey lu bon boo léegi yow lu baax li ngay féete oh man maa féete lu bon kon man bépp jullit bu ma gis ak bu ma gis yéene naa la jàmm yal nañu yàlla boole jàmm bég naa ci kontaan naa ci yal nañ ko téye weer wi déwén sama doom ñu gis sunu mag ñu baax ñi li ñu liggéey ci réew mi euh, boo xëyee yëngu-yëngu yi ngay dégg ci réew mi ak yàqu-yàqu yi nga xam ne yaa ngi koy dégg ci réew mi euh, tey ban message nga mën a lancer ñi nga xam ne tey jii nii euh, ñi ngi def ay yoo xamante ni bi di neexul askanu Sénégal ba ñu xëy tey ji def ay tartal wala ay yàqu-yàqu dañu juum rek dañoo juum rek bu ñu toogee wax wéet suñ sëriñ ba ma sëñ mën toon nee na woon da ngay toog ba yaa nga dugg ci ruq di ruq man maay kan ruq man maay kan doomu aadama bu ne war na koo am nga dem wéet xalaat li ngay doxale ni ngay ak ni nga ak nit ñi ba doo mën a juum fenn réew mi kër kër dal lu mu yëngu-yëngu day dal wallaay fii dara du fi mos a am jàmm fii jëkk jàmm fii mujj su seexee yàlla yonent bi xam ne moo di bind fii jàmm rek fi Sénégal jàmm rek fi am ndax ñi fi baax ñi jiitu nañu fi te ñaan nañu fi te ñaan yooyu ba léegi moo fi téye moo téye lépp kon yàlla na yàlla may nu gudd fa nu ñëpp fekke waat appel bi déwoon ànd ak wér ak mbooleem ban ban ban kàddu wala ban message nga mën a sànni jeunes yi nga xamante ne bi ñoom ñooy sunu ay morom guddi yi nii boo la boo xoolee tàkk-tàkk yam ak yëng yëngu yi am ñoom ngay gis ñu fës ci kanam bëri si ban message nga mën a lancer en tant que say sët wala en tant que say doom ma di ñi leen tax di daw ak ñu leen dóori ay lakkal mu ak ñu ci dee ak ñu ci gaañu seen i doom newuñu fi ñoom bu dee wu doon tàkk tey seen benn njaboot du ci bokk nit ñi ñoo ci bokk mënunoo dem nan seet ci réew yi yow réew yi nga xam ne fi bi am man ci télé balaa lu seetaan waaye damay xool ba yàgg man damay jooy ma ne loolu moom yàlla na wum yàlla wum xale yi dañoo juum dañoo juum rek waaye léeg-léeg ñu am na ci ñoo xam ne bii rek dégg naa leen ci télé bi ñu ni ñun xeexatuñu xuloowuñu ndaxte seet na ñun ñi ci demoon tey jii fu ñu féete seen ndey ñàkk seen i baay ñàkk ñoom ñi tax ñuy xeex xuloo ñu ngi yor seen i doom làq leen ca ginnaaw génn ñu xeexul kon dama leen laaj ni leen nañu ànd ak dal ànd ak teey taxañ réew mi Macky Sall moom ko keneen moom ko ñun Sénégal noo ko moom ku fi ne da ngay dem sa morom kon bu nu ko yàq li fi nekk nooy borom noonu xam ne xale leen waaye xootaat seen gànnaaw xam ne li fi ne bu nu ko yàq ëllëg ñoom seen pertement la ndax bu nu xoolee dund bu yokk bi lépp yokk yàq bi ñu yàqoon rek la ñuy fayeeku courant bi yokk na ndox mi yokk na dund bi yokk li ñu yàqoon la ñuy nañu dellu gannaaw te xam lu ñu fi yàq noo koy fay Macky Sall du ko fay de du génn ci poche am suñuy facture ndox courant dund bi te ñun amuñu doole nañ seen ni seen yaay dimbali seen yaay dimbali seen baay ndax Macky Sall lii moom yëgu ci dara teew koy añ di reer yëgul ni ceeb seer na yogul ndox seer na yëgul diwlin seer na nun noo koy yëg xale maa ngi leen di ñaan ngeen dellu ginnaaw te xoolaat seen waajur yërëm leen te bàyyi yàq beeg xeex beeg taal bi lu ngeen taal ba léegi noo koy fayaat oto yi ñu taaloon osa yi ñu taaloon loolu lépp moo waral dund bu seer bi ren dund bi kañ la gëj a yomb dara yomb dara yomb sunu doom seen morom yi nga ñooy si njaboot daw nañ ba dee ndax bëgg a yor seen i ndey baay nañ leen jàppale te bàyyi yàq bi yàq baaxul bi lay yàq amul mucc amul premier amul mucc ndaxte bu ñu toogee ba seetaan daañu xam ne lii ñu defoon wax dëgg yàlla amul benn njëriñ njariñ ñun amul njëriñ ci ñun de kon amul njëriñ ci ñun nañu ginnaaw teggi seen te teg ko fu rafet bu baax te xam ne li ñu fi yàq rek nooy borom te li ma mooy am li ñu fi yàq noo ko moom Macky Sall day dem bu demee ñu yàq réew mi kat ñun fu ku ku ku ne wutal meneen réew ñi ci diyee man maa ngi masawu seen i man ku ma ci gisee ñu ni kii dañ ko def lii rek day mel ne maa ko jur man wala sama doom ma ko jur nañu def ndànk te teey te bàyyi yàq te bàyyi xeex ak xuloo Sénégal yooyowul xeex ak xuloo Sénégal lu rafet rek lañ leen xame way bu rafet lañ leen xame woon waaye ñu ngi bëgg a yàq way nañu joob gaal gi jubal ko rek moo gën de ñun ñëpp ñu bokk raw ci jàmm ak salaam wa salaam yàlla leen ko teey weer bi di woon sama doom ñun yaar balaa li yaa ngi ci jàmm sant ah, ban ban ban ban ban uh, gis-gis nga am tey si tey waayu appel bi nga xamante ni bi moom mooy cent quarante-quatrième appel bi Seydina Limamou Laye tey xanaa kontaan rek ñaan yàlla ñu koy fekk ak di feddali suñu ngëm Seydina Ali moom nga xam ne mooy Rasulullah ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwéni déwén Euh, Tadjéene euh, yow en tant que Layeen euh, ku ne gis na ni cent quatre cent quarante quatrième appel Seydina Limamou Laye ay foote du ay caaxaan tey jii nii yow lan nga nu mën a wax tey jii si histoire Seydina Limamou Laye tey ba tax bis bu wootee rek tey yow mi doo ko wuute en tant que Layeen. en tant que Layeen Seydina Limamou moom ay mbiram buñ koy wax di jeex naan gars rek dañoo xamul mais ku xam du weddi Limamou. nañu ñëw ku ñëwul gëm sax nga ñëw xéewalu dëggal wax ji parce que lii xam nga ne lii sa année lay gën a yokk ndax bàyyi laay mooy resooru laay di wax da rek képp kuy laayeen rek mu lay ñaan ñun woote bi du dañ te saa yu ñu xëyee dañuy gën di gëm feddali suñu ngëm ci Seydina Limaamu alayhi salaam euh, lan nga nu mën a wax tey yow en tant que jeune jàngale Seydina Limaamu Laay si jeunesse bi xanaa ñun yarul rek nañuy yaru topp ndigal fonk suñu ay waajur